nekkal rek un opportuniste un arriviste foo gis occasion rek sauté ci parce que gestes yooyu ngeen di def di transhumer fii kële bokkoon fële ñu fataat ko fële kële lii nii loolu day répercuté wu ci jeunes yi day dënd ci ñoom jom day dënd ci ñoom dignité mooy am la parole dañuy dem am yàgg dañu naan ah ay ay j'ai ma parole je tiens à ma parole dootul amati sens mais bu ñu demee ba parole jeex ci nit j'ai ma parole j'ai déjà donné ma parole sama dignité mayetuma ma demaat ci nit ñi di leen wax le contraire mais loolu bu dañee ci nit lan moo fa des li nga mën mooy li ngay wax nit ñi nii nii cent ans après bu ñu la woowee même discours bi lay doon soo xoolee ci bopp ci seet nga xam ne yow mii góor yàlla nga. dara warul mën a jënd sa dignité dara warul mën a jënd sa sa sa sa personnalité booy dugg ci mbir yooyu di dugg booy dugg ci mbir yi c'est parce que da ngay xam que ni lii mooy li la war parce que taxawal sa réew dëgëral sa réew. loolu ci jaamu yàlla la bokk parce que réew ma nga nekk ay jaamu yàlla ñoo fa nekk effort yi ngay def pour que nit ña mën a faju nit ña mën a lekk li ñëpp bokk nit ña mën koo séddoo ku nekk am ci sa part boo ñëwee di jàppale ci affaire boobu noonu kon yow yaa ngi ja yaa ngi dimbali jaamu yàlla yi képp ku dimbali jaamu yàlla yi lan la ci yàlla wax ci sama jaam yi kese nga ma mën a defale dara loolu la yàlla wax. donc yow au lieu que nga un prostitué un opportuniste pour la euh, popularité vous avez un cadeau vous avez wala sa mbolo, mais da nga un man avez lay un Vous avez yi un Vous naka laa leen Vous donc bu may Vous position dëgg kese Vous avez position yow vous avez loolu kon yow avez ngi ci Vous ji a def ça, avez un ci Vous ji un ci mais vous Vous avez un yow vous dara yow perte lii mooy suñu réalité ñun rôle bi ñu ci war a jouer mooy ñun ñi nga xamante suñu génération la Ni ñu jugtee nii c'est ça c'est ça c'est ça la bonne attitude c'est ça la bonne conduite donc dem bii nag bu ñu gisee loolu dañuy jëfaru bu ñu jëfaroo position kese lañ am xaar ma ñu xaalis xaar ma ñu xaalis parce que pour ñoom sénégalais boo ñu xee xaalis mu weddi boppam. donc lenn qui que la solution nous ñu déggee xaaral ñu déggee nous ñu wax leen communication leen communication à la télé que dañuy créer li, wax à la télé que créé na li, bu ko yi day corrompre leen tous que relation lañ mën am sénégalais yi ak jaamu corrompre leen corrompre leen que euh, corrupteur yi alif la tout ce qu'ils savent faire c'est corrompre les gens une bonne argumentation une bonne façon de faire budul ah dañoo mer dañoo mer indi indi nous dig ay milliards dig wax ne dañ def la donc loolu noonu yow yaa koy jombaleel sa bopp yow Y sa yow xam lan moy, yow yow lan moy sa personnalité lan moy sa dignité lan moy sa sa lan moy sa rôle lan mooy sa mission réew mi yow nan nga ko mën a ci lan nga ko mën a apporter nga ni man góor yàlla laa man góor laa dañ maa jur fu ñu ma war a jure man mënu ma référé wu ci Serigne Touba ba noppi nekk nit ku ñàkk jom ku ñuy jënd parce que Serigne Touba benn yére yi ñu ko xamee amul woon sax poche donc man soo ma am jaar ma faneen mais pas ci ñëw di ma dig xaalis maam El Hadj Malick soo yàpp woo xam ne xamul fu mu jógee di ko ko jël parce que ragal yàpp bi day li nga rey mës naa lekk alalu jàmbur donc yow xam ne kon man ci maandu laa war a dox. ci alal ju lew laa war dund yoo xamni mako maa sama bop lolu réflexion yoy noonu ñun fofu noonu moy suñu ay repère lolu mo ñuy def le vrai type de sénégalais parce qu'on s'est égaré depuis 1960 y a eu des pions yu fi nek de liggéeyal tubaab bi jox ñu benen direction nañu bu len jang xasaay di euh, waxu ñi bu len leen bu ngeen ko duggal ci école yi bu ken jang sen mag ñi parce que bu ngeen leen jangé dañuy yor esprit sénégalais duñu yor esprit français ils ont tout fait pour nous dévier du chemin même Cheikh Ante Diop pour ñu pour que nous les noirs nous sommes des rois nous dominons dominer nous ñoo créer civilisation dañ Cheikh pas Diop leen ils ont tout fait pour nous dévier du vrai type de sénégalais on est devenus on est devenu ki la gën a nuroog tubaab bi moo la gën ki nga xam si nii détaché wu na da lim doon détaché wu na da lim doom jege na tubaab bi nuroo na tubaab bi këram doomam yi sax tubaab la ne la leen làkk moo dàq prononcé kooku noonu dem nañ ba ci société bi moo la gën su tubaab bi xamul suñu benn mot benn mot olof tubaab bi xamu ko ñun boo débrouillé sax ba def faute say morom ñi réel, la ndax complexe bobu def nañ ko ci ñun parce que li ñu waroon a def idéal dañoo fexe ba ñun defuñu ko idéal li ñu doon def li ñu waroon doon def idéal suñu ay oppresseur lañu def idéal mooy ñoom bu ak seen ay descendants ñun loolu lañ def idéal ku nuroog ñoom yaay ki nite ku nuroog ñoom yaay ki intelligent donc bi ñu dominé ils ont tout fait pour que ñoom seen culture ak seen façon de voir ñu fexe ba inculquer inculquer ñu ko ñun ñu bàyyi suñu boss donc ces pions ils ont tout fait pour que ñun nous n'urok, Nous nous ñu nous ñu nous ñan Nous ñu nous ñu nek ay xar daw top ci Nous non ak liñu yalla may nous ak liñu yalla may lepp ñu Nous fi ñun mettre en valeur suñu quartier yi suñu rue yi ko sax suñu ponkal ñi nga xamni ni foo da nga naan diw ñun la kan moy diw nga nga identifier sa bop ci diw bobu nonu bëgg a nuroog kooku noonu nga am ben ben certaine fierté ndax man ki ci man la bok je suis descendant d'un tel ils ont tout fait pour que suñu ay dëkk suñu ay rue suñu ay euh, monument lepp ñu jël ko tudd ko suñu ay oppresseur di leen xoole comme ay yalla yu ndaw comment nit ki boko joxul fiertem nit ki boko ko ñëwul nga gën ko ko jox fiertem lan moko déssé te sa fierté weesuwul nga wëlbatiku ñu gis ay ay nit yoo xamante si nii lii lañ def ci histoire nga tudde leen benn monument benn boulevard benn école benn rue ku tourné di dégg un tel un tel nga gën a identifié wu sa bopp ci ñooñu say maam lañu demoo ci maamu kaneen say maam ñoo def jaloore jii nii ba tax na foo tourné ñoom lañ tudd seen rue yi seen statue loolu moo jox nit ki sa fierte parce que tubaab bi fait tout pour nous démoraliser pour wan ñu que ni matu leen ay ponkal vous n'êtes pas assez rentré dans l'histoire vous n'avez pas été assez intelligent te ñoom liñ jàng lépp fii lañ ñëw jël si Afrique mais su fekkee que ni teg ba bopp réew ma ngeen ngeen wëlbati da ngeen wëlbati réew yépp parce que ko yor bépp réew mi mooy yor programme ak vision bi mu bëgg a tëral ci réew mi foofu lañ ñu naxe depuis 1960 dañoo yor seen ay pion yu nekk si bopp mi defal seen politique bi ñu bëgg ñu ko indépendance Nous musta Nous indépendance. ñu nekk seen xar jëriñu fan ñu bëgg a di tëj suñuy ponkal la marginaliser changer suñu constitution def président ku di tagg tubaab bi di magnifier tubaab bi di wan que ni tubaab bi maa leen gën a bëgg seen làkk seen làkk dafa rafet seen làkk làkk développement la làkk humanité la làkk humanisme la. réew mi topp ci loolu ku ne jàpp ne intellectuel mooy loolu ndeke intellectuel mooy maam Cheikh Fall intellectuel mooy maam Cheikh Fall maam Cheikh Fall bu daan signé homme d'affaires lay signé maam Ibrahima Fall homme d'affaires am ay bureau am ay avocat di liggéey xaalis di dimbali réewam au lieu que ñun ñu wan ñu que ni lii mooy intellectuel mooy dangay xam lépp fa yàllaaw ba noppi daal di suufe nekk ab Baay Faal bàyyi lépp topp yàlla nga xam ne àdduna bi dafa éphémère da nga fay war a jaar mais jéem ko impacter positivement au lieu que ñu wan ñu ne lii mooy intellectuel ñu wan ñu que ne ki la a def ay citation Voltaire Victor Hugo nangam sangam kooku mooy intellectuel bi. Nous sommes à la télé di doser di prononcer prononcés ne di wan sa morom kan yi la gën a Sarkozy de la Jacques Chirac de la du intellectuel l'ordre intellectuel motax am rew ka nek ci c'est très important ka nek ci bop rew mo mom moy moteur bi ka ci direction ba mu jox direction la

Mame Mbaye Niang bu leen ko wuy ci ay menaces am ubbi leen xel yi xam leen yéen la ñan bis bu ngeen xamee yéen la ñan kenn dootu leen ñeme ci àdduna kenn du leen attan parce que yéen da ngeen xam fan ngeen jógee yéen la ñan ay sagaru tubaab dootuñu ñëw fii ne dañ leen di def seen i jaam tëjal diw rayal ma diw nañ ko maquiller tudde ko tudde ko suicide nañ ko ray ci kaso bi nañ ko tëj lii nañ ko jiiñ nangam ak sàngam kenn dootul am fit ñew dugg seen dëkk ne ñun liñ bëgg réew ma dox fa noonu la noonu la réew mooy doxee bis bu ngeen wanee xamee ki ngeen doon pourtant c'est récent l'histoire de Serigne Touba c'est récent Serigne Touba tubaab musu impressionné même Aladji Malik tubaab musu intimidé mais c'est très récent on ne vous parle pas des siècles on vous parle d'une histoire très récente mais bon Dieu war nañoo mën a identifier wu ñun ci jàmbaar yooyu noonu ndax dignité ndax fierté bi ñu amoon ci nekk ay nit ku ñul siggil ñu bañu bañu ba waaye yow adduna bi ñun ñu bëgg a bàyyi seen ay ndongo ay nit yu ñàkk fayda nekk leen nekkal leen Afrique nekkal leen Afrique ñu naan ko tëjal ñu euh, opposition opposant bi tëjal euh, euh, ñu ko lii signeel ñu ko pétrole bi jox ñu ko lay jox ñu ko ñu ñu am ci seen ay pion yu ñàkk fayda ay nit yu yu waye di ay nit yoo xam ne ay nitu dara ñun ñu nangu daal def ne ah mooy président de ah moo fi nekk de ah, ñoo ko fal de tout en sachant fal bi yépp ci ay sàcc la ak ay njumlan ak ingérence ak ak ay politiciens yoo xam ne ñuy ñëw di def euh, seen ay campagne ak ay ngeew ñoo leen ngeem bu jox leen xaalis bu jeex na leen leen defi campagne ñu toog naan ah moo faluwa ah. maa ni tout en sachant que ni danoo sàcc